merci Mamadou comme tous les Sénégalais on se réjouit d'avoir quand même euh, une justice qui commence véritablement quand même à jouer son rôle euh, parce que dans un pays de droit euh, quand le droit est dit euh, je pense que dara du xew comme nañ ko foogee gis nañ dëkk bi liñ ci defoon yëpp mais gis nga mm, dëgg su jibee Euh, c'est les âmes qui le du sax nit ñi mais nit ñi dañuy xam ne wax nañ lire nañ droit euh, te lire droit du wax ko nii rek parce que am na dëgg wala Ousmane Sonko dugalaat nañ ko liste yi il faut euh, que dans cette affaire c'est quelqu'un qui a été enlevé des listes ay série de faits je suis pas juriste mm. mais quand même mm, j'ai cette comme homme de science damay déglu ñi nga xam ne au moins ils ont l'honnêteté d'avoir fait le droit ñi ci gën a xarañ ñu wax ci ma déglu si ñi ci ëpp xam-xam bokk euh, man damay déglu toujours les universitaires ñi nga xam ne ñoo koy jàngale dans cette histoire soo jëlee fee yëpp euh, nga jëlee ko ba ñu ko raje ba ñu jëlee notification yi soo ko jëlee ak leneen ak leneen li nga xam ne yëpp da doon firndeel ne mënuñu koo dindi contumace contumace ba état de contumace beeg loolu lépp je pense que c'est des faits. Mm-hmm. Euh, juge yi jël tamit ndogal néew ñu rek ne noo dugalaat leen <coughs> c'est des faits yu ñu teg ñoom ñëpp motiver ko donc fait fait yëpp euh, nit ñi d'accord nañ ne unanimement que euh, Ousmane Sonko dañu ko tooñoon injustement génne ko dañ ko war a dugal amuñu luñ ciy réjouir parce que man dama naan si dëkk dëkk dëkk yoon noonu la war a doxe ñëpp nekk en sécurité euh, parce que ce sentiment de sécurité que su ma demee joteeg nit wala ñu tooñ ma on peut me rétablir dans mes droits day tax nañ nga nangu jugement. mais amul le sentiment de tourner en rond parce que li ma wax booy euh, Ziguinchor lii la waxoon ah il quelques semaines de cela après ñu dem Cour suprême. ñu delluwaat leen fii maanaam. Euh, xëy na euh, fi ngeen nekkoon jógewu leen fa en fait y' a pas d' évolution. dans dans l' affaire dans cette histoire li ñu ko waxoon depuis a une volonté parce que xam nga des fois les gens ils mais l' état aussi est incarné par des hommes il faut que nit ñi xam ne derrière l' état en y a des gens en fait yi nga xam ne ay nit ñi nga xam ne il faut xam nga l'état waxoon naa ko fii si plateau ne mhm. nit si disait que c'est un monstre froid mhm. en parlant de l'état comme un monstre froid day fekk su nekkee dafa am ce détachement ce détachement parti bi nga xam ne partisan day am si ñu koy incarné dëgg la nit ngay doon si société ngay jógu am na fi nga juddoo am na fi nga màggee am na valeur ngay obéir mais da quand on parle de l'état on parle de ce loolu mën nañ jàpp ne naxee mbaay la l'État est par des hommes avec des émotions mm qui font des fois parler des émotions au détriment de ce qui doit être et dans cette histoire les Sénégalais sont unanimes tey bañ ko joxee maa ngi gis seen compilation image yi je parle même pas des militants de Pastef ba ay marché ou poisson un peu partout les gens jubilent qui mhm. jubilent c'est pas forcément ceux qui sont du Pastef c'est ceux qui ont souhaité parce que les bëggul injustice mhm. te loolu mooy dëgg ñun ñëpp xam nañ ne même dans nos maisons quand on a l'impression que quelqu'un subit injustement des choses mhm. da ngay gis soo koy faral sax doo ko doo ko doo ko tey man noonu laa ko gisee je pense que quand le droit a été dit Merci. tout simplement